loo a nar loo nar a sa jabar baa nga wax ko ko wax ju neex baa ngeen bëggalante ci téléphone bi dem nga kattee ko studio waxtaanal ko bëggalee ko ko yaa moo benn temps Omaro guerre day saf mondial lu ko may coroto ya bari yaa ngi dégg gis nga ñun duñu sos ñun duñu sos ñu fen waaye lu ñu yëg mu siiw fii Sénégal la koo xamal kilo ba di ko ko waxal xamal nañ la panta waxaluñ la ko dama bëgg na xolal nga arrêté bu dul loolu yeneen mbóot génn góor jigéen nga sa baay góor jigéen la góor jigéen nga sa baay góor jigéen la tekki woo dara subaak démb ak tay kata Sidi Diop nga fi nekkee maa ngi suñu jàmm boo jigéen a mataaja si ba man ku ma soxla nangam ak nangam tojoo fenn Sidi Diop dama bëgg dama bëgg nga dem toog tojoo fenn Omaro tojoo fenn xaroo fenn maax ñu naan fan si club yow ku la yow ku la yow ku la lijjanti Sénégal ak na mu toll amul kenn ku ñuy créer fan si ku du amoro perte ngeen góor jigéen bu toj cottu ndayam bii waaye dem waa Sénégal nag lii am na waa lii am na tey ñu sëy par la force bu ñu sëyul ma yàq sa der amoro mënoo yàq deru Ayo Baldé nang cee ndaw mënoo koo yàq laa ilaha illallah Baldé bànnaa bi fees riis bees jongoma mënoo koo yàq kee naan fan si club kon Omaro am na fan si kon am na ñu ko bëgg ba koy fan si boo am na ñu ko nawloo man xaw ma ko woon na dama bëgg nga toog gis nga boo ñu woowee ci guerre di nga départ bàyyi ñu fa ndax li ñu la xamal bëri na avant Ayo Balde jeeg bi nga fase un mois ngeen def nga dem ca kër ga di jaay reewande ñu nokk la ba diri la doyatul taloo taloo bëgg sa jabar taloo waxtaan moom taloo ko nengal doo ko aayoo nenne ndax loo ko wara a bëggalee bëggalee ko Sidi Diop taloo dara ak Sidi Diop ak Matar Diop ma ma ma ñoom Matar suba teel ñoom nga tal Omaro mooy li la wax rek doomu caga nga góor jigéen sa baay di góor jigéen sa yaay di caga nga judd ñetteel leen taloo kat sa jabar virtuellement taloo ko wax wax ju neex talu leen a defante yu baax ndax loo ko war a defar rek kattee ko Sidi Diop bégalee ko Sidi Diop raayee ko ko fóonee ko ko yow da ngay takk jabar di ko mbubboo rek jabar na nga koy mbubboo waaye yow soxla woo jabar góor ñi nga soxla ndax góor jigéen nga góor jigéen nga góor ñi ngay katt Sidi Diop ngay katt di ko raay di ko fóon taloo katt sa jabar virtuellement moo ñaan la baat nga ne àddina tey lay tukki di yónnee dootoo ko defati ñun duñ la sosal liñ lay waxal dañu koo xam da ngay régler rek nag ñu ni tekk bàyyi soow mi mu dékk nga ñàkk a ñu waxal la liñ la xamal dëkk bi toj yow de Omaro di nga xam ni Ayo Balde du juddu jéeri du mbadantaan fii la dëkk dootoo ko defati Ayo Balde du wër di Samba Mbayaan tubarkàlla soxlawul ay gér xale bi ba mu doonee lu tuut lu tuuta tuut la dem Europe di daan dooleem takk ndigam di liggéey nekk commerçante di def vente en ligne xale bi namul dara kooku sibooruwul kenn dunguruwul kenn marul tuunu kenn pour lekk ñaan dërëmam yaa bal da ngay mbàkk yow nga xam ne siboorukat nga dungurukat nga markatu tuun nga pour am dërëm wala ñaar dërëm yow booleeg sa salaire yow xam nga ni deux heures la jagal bu du woon ak deux heures nga tepp sa di jëw nday si boorukat bi nga doon dooma raam bi yow yow yow amaroo foo toj Ayo Baldé mi nga xamante ne liggéey rek la xam daan dooleem rek la xam kenn du ko dégg ci daray ñàkk fay da wala matadi ndox ndox nag munta ñàkk ci dundu doomu adama waaye lu wees wees na tey lañu jàkkaar lool te tey yaa feeñ la góor jigéen nga waaye yow Omaro sa cottu ndey sa cottu ndey ba ma ci wër di dakase déggoo ma de yow bandi woo dangay bandi bandi lu kooba yu mag yaa ngi nii toog nga yabal sa koy kii nii rek périgom mu mel ni kankurang doomu saram ndeyam bii pet wayadi mankan kunkan yow Ayo Balde du la tontu mu naan ko vidéo bëgg buzz ak followers Ayo Balde amul sa du sa moroomu ndey Ayo Balde du sa moroomu ndey dégg ma Ayo Balde du la tontu ñun nii ñoo lay tontu di wër di ubbi sa lëfal ndey suba soo yeewoo suba boo yeewoo ubbi say bët sa digg lëfal ndey te doo ci mën waaye ma ma doon yow góor jigéen xaraamata njaay bi xam ne kattan ko jëri kattu ko waal tuwaar kàlla turam ko wàcc ay coppatan bi lang tuwaar kàlla amul yow comme ni nga koy wax de ayo ba de tuwaar xaar ngaa gërëm war ngaa xëj kulitu maanaam ba dugg ci umur mi xam tekku dëjjëw ndayam xam ne sama mayaan na sama mayaan